asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience ah del si waxtaan rek comme ni ñu ko doon fal di defee ndax euh, ay bokk dañoo war di waxtaan di diisoo te lépp tegu ci argument te am xam-xam xam-xam maanaam science déterminée ko euh, waxtaan nag buñ koy def euh, raayalante ay ginnaaw dañ ko war teg fële te kenn ku ci nekk la ngay wax nga te ko ci xam-xam bu wér xam-xam nag ci xel mu jóge mu ne baax na xam-xam du bon mukk euh, bala may door nag comme ni ñu ngeen ma ko ñaane nu ma gisee euh, nii waaye yeewi askan wi euh, demee ci xalif général des Mourides bëgguma ci woon a wax ndax ñoom ban fay dem Ousmane Sonko yëkkatiwu leen seeni politique moo leen yóbbu woon seeni politique mooy leen yóbbu woon buñ fa tuddoon Ousmane Sonko sëñ Mountakha du leen ko tudd mais ñoom ñoo fa tëdd ñoo fa tudd Ousmane wax fa seeni wax sëñ bi tontu leen d'après information bi jël naa ko ci ne ko dox may na bu sa ca la bokk te ma soxna may na bu sa ba mu ci luul bëggoon lu sotti ndax moo leen jox courage ndax ñoom ñoo demoon moo leen ëpp fit moo leen gën a xam Sénégal te malgré jigéen la la tax loolu am ay xalaatam ca la ci d'après euh, information yi ma jël sëñ Mountakha joxu leen tàndarma déedéet ñoom ñoo jënd tàndarma indi tudd fa Ousmane pour bi ñaan ci pour sëñ bi ñaan ci euh, grève de faim boobu grève de la faim boobu sa sëñ bi xamu ko li ma ci jukkee daal mooy le khalife général des mourides nekkul en sécurité nekkul en sécurité wala bëkk néeg yi war nañ leen a remplacer loo xam ne dafa yëngal àdduna ñëpp di ci wax lépp luy foo rek buru caa dugg te dem gi dem ci sëñ Muntaxa bett nañ sëñ Muntaxa te ñoo fa yóbbu seen bopp ànd nag ak Macky Sall dem bi ñu dem xalifa Sall du ca bokk déedéet waaye Khalifa Sall wóor na ko ne daan yóbbu tàndarma wala biti lu mu jox sëñ ba pour sëñ bi tifli ci pour Ousmane naan ko yéen bëkk léegi xoolal leen seen bopp ay bandi ñoo ñëw ci yéen ñu jël tàndarma jox ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa ñaan ca tàndarma ja tefli ci tàndarma ja ñoom jëlaat ko des ennemis de Ousmane Sonko jëlaat ko ñoom xarifa Sall sax laay wax ndax réeroowuñu jël tàndarma jooju jox ko Macky Sall mu def ca posen wala ñu am ndigalal def ci posen bu ko Ousmane Sonko lekkee faatu ñu ne sëñ Muntaxa ko rey sëñ Muntaxa ko rey ndax sëñ Muntaxa moom leen du ma lekk lam lekk ba dee sëñ Muntaxa ko jox lañuy wax moo tax ci kër gi lañ bokk bokk ci yoon wi ñu yor sunum xel ñu lànk ba ñoo xajal din beddi ak a dàq ak din toroxal waaye fu ngay defee seenu njombe rek bu soobee daañu ko leeral dama ne fu ngay defee seenu njombe daañu ko leeral sëñ Muntaxa xam na li xew il fait de la politique PAI la newoon xam politique mooy lan mag la nag mag du demee am xel ñaare nit bu leen bu dugg téeméeri at lam xam bëreetul kon yéen bëkk néeg yi yéen njaboot sëñ Muntaxa warlu woon a bàyyi politiciens yi di ñëw jël boyatu tàndarma pour sëñ bi ñaan ci ñu bul ko Ousmane Sonko nax ko nekk suñ mu taxaa ko jox ewaay eh xoolaat leen seen bopp te ñam wi mënta dugg ci prison te prison yi jëluñu ko ñu koy garde te ñu koy garde ay complice lañ mën noo jël tàndarma ji def ci leen bëgg jox ko Ousmane Ousmane lekk ko xëy dem ñu naa ah, sëñ Mountakha ko posone waxoon naa leen ko fii ci foto yi sëñ Tuubaa yi bi foto yi génn ni dama ne nee leen du sëñ Tuubaa lànk leen lànk leen du sëñ Tuubaa ngeen nangu ne sëñ Tuubaa tubaab bi bëgg lu wér bëgg lu wér mu ne dama leen koy jaay jaayin ko quarante-huit million ngeen ngeen defee yéen ci ne may leen ma rek un quart de siècle may lu ma un quart de siècle du ca àgg du ca àgg sax ndax Macron mer na reporté la yooyu ay kàddu ay kàddu lay indaale vidéo la daañu génne caméra muy wax ngeen di dégg cawaay demee leen seenu xel te nekk nit ndax doon doomu aadama jot na am xel boo ko tëjee rek yaa ngi ci mooy yàlla te sëñ Muntaxa mag la ñu di ko dëkkee di ko di ko nax waaw yor ay géwél yoo xam ne jànguñu xamuñu sëñ Tuubaa Mbàkke ñoo ko daan dar kenn ku dangaa jàng alxuraan ba damm sa xarima ñii ah waaye jóg leen ci yoon wi jóg ci yoon yi di jël seen bopp LGBT infiltré nañu infiltré nañu mu ngi ci biir Touba LGBT ngi ci biir Marème Faye Sall dugal na LGBT mi ci kër tarixe yëpp kër sëriñ si yëpp mi ngi jaaxasoo ak noonu yabari sëriñ seeg soxna yi sëriñ si ñoom la jël ak seeni doom di leen yóbbu Dubaay ñuy financé tey ñu dey sëñ Muntaxa di ko këll këllee ak di ko fooye moo tax xale yëpp di wax te xale yi wax nag ngi def na bañ sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa lañ bëgg moo seen maam waaye jàkkaarloo sa maam ñu di ko nax di ko raamloo di ko fi di ko wax loo xam dara ci dëgg ngay gone xam ko bu la naqari dama ne war ngaa wax loolu moo naqari moo tax ñuy wax sëñ Tuubaa lañ am mooy suñ maam moom lañ bëgg moo bañ moo nu jàngal nu ñuy bañee nii ngeen nekk moonu neexut di sëñ Bass yow ni ngeen nekk moonu neexut ab dërëm rek ay koppar kepp su yoon nekkul ci xale yi dee ci géej gi waaye tàndarma ji coob li mu nar a indi ak séegul kon ma jubli ci waxtaan wi dana mo ren nañ ci wax tuuti naru ma coono waaye naa ci naa ci ubbi ko sëñ Muntaxa nekkul en sécurité nekkul en sécurité ku nar a jëlee ay tàndarma jox ko mu téye ko mu jël tàndarma joojo def ko ci oto yi yët ko Macky sàll mu laal ci posenam jox Ousmane Sonko mu lekk ko wàññi ko ñu ne suñu mu taxaaray na ko loolu ngeen bëgg de te ñoom loolu lañ bëgg mbiri franc-maçon la franc-maçon buy dóor lay dóor ay dóori franc-maçon la ay dóori mason la Ousmane sonk la dóor ci kaw ay dóor la yàlla baax na jublu ci waxtaan wi

Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin. Amin. Jox ko Ousmane dana ci digg dana ci digg dañ asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañoo delsi rek Euh, dellu du waxtaan ak yéen ndax réew mi toll ni situation boo xam ne foog mag ñi nga xam ne ñu responsable lañ foog ñu génn jàppale xale yi ci aw fit jàppale xale yi ci am xel jàppale xale yi ci ñu war a jóg xam ne ci ñoom képp lañ yaakaar pour jotaat sunum réew euh, xale dafa am noo ko war a yore noo ko war a toppatoo ba bu màggee day répondre à son environnement day repondre ak na nga xam ne moom la ko société ba bëggee mais yàlla dogal na tubaab bi gën noo xam loolu ndax nu nu jël suñu doom dénk ko tubaab bi ba xale yaa ngi nii mun leen ci am lu ngeen bëgg xale mënta juddoo kajoor diggante njëxumpa may xàncax waa daan muslaaj tund yooyu yëpp ba ba ngay àgg bawol ak siin xale du fa yeewoo mukk jooy jooy yaay ne ko looy jooy mënu ju je voudrais raisin walla wala mu ne ko dama bëgg ay fraîche wala mu ne ay ceri wala orange yaay pom loolu suñu doom duñ ko xëy jooy xale li ñuy xëy jooy desu reer desu reer li ñuy xëy jooy wala seen dey sippi ca pël ga wut wogg mbaab suusal mbaa njur ni tooyal ca bu ko amul mu jëlum ndox ak xorom tooyal ca rek jox gone ga gone googu ci loolu la dund tubaab dafa ne wax ma li ngay lekk max la sa yaram ak sa jàngoro tubaab dellu ne soo bëggee gis sa bopp gis sa bopp dangay dem nga xool la ngay lekk ci sa waañ mooy yow nun nag defe ne buñ seetoo rek gis nañ suñu bopp maanaam dañoo aw ci yoon woo xam ne du yoon wu war a jaar pour tabax suñuy doom moo tax bu xale bi juddoo ci confusion lay ne maanaam tubaab ba nam yaree doomam xale boobu xëy naa ko papa des oranges mu di ko xolli ay clémentine wala mu di ko boo bëgg ci orange bokkut ak noonu xale yooyu dañuy yeewu ni maman je voudrais des raisins ñu peese ci ay culee raisins muy màcc di ci lal bi nday ji bale nun damane ne xale yee du xëy mukk mukk ne maman si déem laa bëgg mama je veux des sump sump déedéet maman new new xamuñu ko kenn ku ne nag yàlla fu mu la wàcce ni la sa jëmm jooji dama ci muul li ngay lekk ak li ngay fajoo lépp fa sa wet nuy mëq new di lekki cere di taji kaani ba jubug mag mu wopp neen ko bu pari faj ko walla sinon yéen ay garab ñu pikiir ko moo tax dee bari xeli yi gàtt duñ ay nit duñ ay nit senegal li fi meññ ci tàndarma li fi meññ ci tàndarma mut ñaari saako comme Makka ña ngay dogee tàndarma rek ñun Sénégal ñëpp dañu war a jóg liñ dajale jël xaaw yi dem dem dem dem réewi naar yi ko tàndarma indi ndax ñu ne weeru koor wee dikk li ñuy def xamuñu ci dara l'islam dafa dem ba mel ne aada aada ndax confusion bi nga xam ne dal nañu bën juddoo ba ndëgëni ñu ne ci lin jaxasee loola ca la bokk kenn mënta comprendre ñu nekk ci am réew moo xam ne majorité musulmane ñi bëgg a jàng alxuraan te dëgg dañ dem yalwaani yalwaani lu ñu lekk yalwaani lu ñu lekk nun baykat yeeg baadoole yi ñu dajale suñuy impôt di ci jàngal xale bi xam ne njàngum tubaab la yor ñu suñ doom yalwaani dama duñ ay nit duñu ay nit dafa am loolu ñu naan triangle franc-maçon ko lool ndax seen lépp dañuy sukkandiku ci benn triangle maçonnique seen inspiration ci lay génn tubaab bi sampal nu benn triangle maçonnique boo xam ne cadre boobu mooy Sénégal maanaam dafa jël sëriñ si jël tubaab yu ñuul yi maanaam ñu bëgg a mel ne moom tubaab yu ñuul yi ñooñu la naan ñoo ñooñu la naan les transhumants ginnaaw bu jëlee ñooñu ak boppam maanaam sëriñ si tubaab yu ñuul yi ak sàcc si ñoo ànd ak moom boppam ci jeu boobu ci jeu boobu ci lañ tari lépp tarixa yi féete ne gouvernement féete ne tubaab bi féete ne tubaab bi awale yëfam ci gouvernement bi gouvernement bi awri ci sëriñ si ñu déggoo ba noppi nun baa doole yi baa doole nun mbaam yi ñu dóor di quatrième position pourquoi quatrième position quatre boo déggee doon lab quatre franc-maçon naan laboratoire quatre lab foo lab foo bu ngeen ko déggee sécurité maanaam ak kees la gun te siile ko ne ko kàpp tëj sécuriser ko moo tax les laboratoires faux numéro 4 ci lañ jël yu bon yëpp bactéries yu bon yëpp ci lañ ko denc nun daanaka ay rabi àll gën benn sunum xel nanguñ koo jël utiliser ko pour defar suñ bopp sunum xelit mënuñu ko jël pour jubbanti suñ environnement lu dul kii nga xam ne moo la doon toppandoo muy lekk orange di lekk raisin nu ñu lekk new ak ma ci sumb kookee jëlu num xelam ba force ñu ci loolu kooku tey moom lañ toppi tànkam muy tubaab bii dama ne dara dara dara mënuñoo tee torox ñoo ñuy wooyee intellectuel nga xam ne ñoom la tubaab bi jël yëkkati aw kayit jox leen kayit woowu dañ koy fonk yaay man da jot naa sama diplôme yaay am naa bac yaay de sama master nangam yaa combien de master yaa combien de bac yaa au Sénégal ndax ñoom ñoom lijjanti nañ dara ci réew mi ñii am baggi ki mas eh, ndax ñoom lijjanti nañ fi dara ci toroxtaange lañ nekk te kenn yóbbuñ ci ku dul ñoom ak sëriñ si kenn dellu wax li am la majorité lu am solo la boo nee dans la dans les de la démocratie dañ fa fekk ñu ne la majorité fait la différence et une majorité toujours dafa am doole tubaab bi da ko renversé bu naan sëriñ si sëriñ benn minorité bu ndaw maanaam ñu yor yax bi ak deret ji di doon une minorité la boo xam ne ñoo commandé l'islam yi Sénégal ba mu daj bu weeru koor génnoon tey nga teg sa kenn du ne kan wax imaam imaam bi mais dafa nu ko xalifa bi déggee cette minorité waxtaan ak état bi waxtaan ak tubaab bi doon ne weeru feeñ na ca barab sàngam dama ne suñ xamul fi ne fi nekk kon war na noo leer ne xamul fu jëm une majorité ba ci état bi xool leen les politiques les politiques bon état ak ñi lonk ci état bi benn minorité un pour cent la ñoo téye la majorité xool leen ci def ci ak kees yóbbu laboratoire foo warehouse leen boo ñëwee ci kër yi kër lu muy yaatu yaatu rëy rëy donc il y a une majorité dans cette maison benn waaye lañuy ñuy xaar benn la ñuy xaar pour muy làmb poosam weer wu dee di joxe njël ñaata def ay xotti gerte leen la majorité au Sénégal amul sens ñaata murit ñaata tijaan ñaata xaadar ñoo jógandoo songo doo benn bis muy màggal wala gàmmo ñii ñëw seeni dërëm lañuy indi waaye anuñ fay jëlee ay tiflit ci kanam tiflit ci kanam nga diw jóg dem te xaalis boobu dikk ana koy jël kana koy jël les coopérations maanaam tubaab bi sëriñ si ak état bi tey jëm parce que nous avons refusé de réfléchir liñ yàlla defal may nu ko gëmunu ko yàlla ni mu jële alquran teg ko ci suñuy lox noonu la jële réew mi réew mi jox ñu ko teg ko ci suñuy loxo ñu war a amum xel amum xel lii nu yàlla jox muy réew mi lii nu yàlla jox muy alxuraan ñu war koo jàpp ubbi suñu xel dem ci jubbanti ko jubbanti réew mi dañoo lànk dañoo lànk di xaar tubaab bi bi nga xam ne orange lay ndékkee di deseeroo ay cherry ay blueberry ay cranberry ñuy xaar tubaab boobu pour mu lijjanti nu luñ lekk moo tax ñu doon ay dof nous avons une université qui presque de cent ans université de Dakar cent ans la mu mat ko ak d'autres universités secondaires yi ci topp te dama ne ak ruuxu ruuxu ruuxu yi suñ ruuxu suñ maanaam ruuxee am soow amul benn ci université yi wala benn boroom xam-xam bu nekk Sénégal bu ci mante benn bouton boo xam ne boo ko bësee rek mu rox soow mi amut ab gopp gopp jam bay yuuxu sun maam yi ko créé woon am na lu ëpp juróomi téeméer at barsàq sun daara yu mag yi université yi ab gopp ab gopp ba nëgëni ba nëgëni mënuñu ko soppi bouton boo xam ne ak xandal lay wëndeelu di bay tool yi dañuy nax suñu bopp wala nu nax nu bay sa gerte ba mu ñor war ko dugal dans des unités de transformation tubaab bi dikk ne la man de ci la ñaar dërëm laa koy jënde ba pare ne gouvernement bi na fexe ba bu gerte gi dem Gàmbi bu gerte gi dem fenn gouvernement wuti soldaaram ñuy wër kun dajal nga nga bu gerte ñu nangu sotti tubaab bi dikitoon ni lépp yóbbu ci ab dëkkam créer des industries ay ndisam di liggéey mu cay def lam ca war a def la ca nëx nëb mun ñu ko jaay na ko xam ngeen ci dara bu leen dof doflu dem leen ci tool yi ci àll bi tooli tubaab yi tamaate ju bees yi ak yu bees yëpp dañ def ci ay kees def ko ci avion bi mu dem directement Europe yu noonu yi xaw a fuus moom lañuy jaay ci réew mi ñu ñamee ko te ci la ñu fay nit ñi kan delu xalaataat ngir yàlla yoon wi ñu awdu foofu billahi yoon wi ñu awru foofu dama ne une minorité ci loo dem rek une minorité une minorité mooy contrôle lépp prenons exemple yéen immigré yi kan bokk waxtaan suuf yi nekk Europe ak Amérique bu ngeen sàncee ci benn building doon fa gan dama ne dañ leen di fonk tubaab yi ab leetar ab leetar daañu la ko jàngaloo mail box bi alo hi hi how you doing what's up what's up man how you doing waaye building boobu bu benn Sénégalais dikkee ñaari dikk ñetti dikk ñeent juróom ngeen occupé ñaari flo ci building bi ñëpp tàmbalee tuxu ñëpp tàmbalee tuxu ñii liñ togg dafa xasaw ñi seen wax dafa bari ñii daal duñ ay nit ñii daal bëgguma nangam seen jabar yii seen doom yi lii building bi day tas ñëpp dem ay sénégalais koy mujjee di xeex bu police dikk tëj ko dama ne du ma leen wax ay fen réew mi laa bëgg gëm ko pert naa nag perte ndax li ma def ci àll yi defuma ko ci réew mi 1975 laa jóge Sénégal dem France boobu ba léegi damay taxawaalu Amérique 1982 laa fi dugg ba léegi ni mënumaa toog Sénégal sama njaboot gépp dama leen a buub indi ci réew mi nga xam ne moo sañoon ca dëgg-dëgg Sénégal laay toog waaye mënta ne ndax foog nga wéy ci li sëñ bi wax sëñ bi mu waxee wax am xel dootu jóg ñépp dof la ñuy doon dictature la ñu ñu naan ko ndigal bu mag Sall xasee bëgg walla mu wax dictature pure lay doon te nit ko fi jëlee wala ko fi jéem a jëlee moo ànd ak sëñ bi fàdd la looloo fi nekk complot bii nag sëriñ ci def ak tubaab bi tubaab yi ñu lii après nag lañ dikk après wax naa leen di dogal di ñëw dafay man soxluwuma tubaab yu ñuul yi maa leen fi indi man sëriñ si laa bëgg a waxal dama ne tubaab yu ñuul ñi maa leen fi teg ñu di ma liggéeyal kon bu ma ñëwee ba Sénégal lu ma leen di doyee ñoom kilifay diine yi nga xam ne sama maam ak seen maam ñoo toogoon waxtaan en 1896 ba ñoom seen maam yëkkati réew mi may ma may ma seen maam ñaan ma penku bi ma ko penku baa ngi del julli seen maam dellu ñaan ma fu may bay pour dund ma ne ko jël fii di fi bay waaye moo soxlaa nga bayal ma nga bayal ma muy contrat bu ñu signé contrat ba la dëggal gëm mor bu dikkee Sénégal bu ngeen xoolee tribunal ñoo ko doon gàttandu ba aéroport ñu ànd la Serigne Cheikh ko doon gàttandu ak ah, di ko ñaanal di jooy di jooy kon histoire Sénégal mën leen a fexe ba duñ ci tudd sëriñ buñ tuddee sëriñ nag ngeen mer parce que ay fanatique ngeen le fanatisme day yàq ak yuur moo tax ñun ñëpp doon ay dof la création lu am solo la ku toll ne Cheikhul Khadim Sëriñ Tuubaa créé le mouridisme àddina yëpp dëkk kooku ñëpp a koy damoo ñëpp a koy sagoo waaye bu reen fi nu teg ci GPS bi moom lañ topp amaana yu bari dana dakk ndax Sëñ Tuubaa ci boppam dafa lu daan bañ hmm. ngir yàlla kenn yërëm suñu bopp kenn yërëm suñu bopp li nu yàlla jox buñ ci xeeb dara lu wolof langue la boo xam ne c'est scientifique wal of man da ngay koy dëbb mokk nga foof ko génne ko lépp lépp science la Cheikh Anta Diop ne na su ma doon defar tey benn bombe nucléaire par exemple nee na ceytu laa koy defaree te ñamay embauche yi di ma liggéeyal ñu mokkal alxuraan rek la doon wala ñoo xam ne mën nañ caa jàpp bu waxee ñu dégg ñu ne ko ak kan mënuñu mën a wure wure xam ngeen wure wure wure lépp matta ñooñu lay àndal defar ko waaye ana luñ mujjee ak moom ay bokkam ay bokkam ñoo ko raylu ay bokkam a ko wor ay bokkam yor na ànd ak moom jàppale ko lu ko dal ñooma ngir lan ragal tubaab ak bëgg alali tubaab képp moo tax ñu rey ko waaye Cheikh Anta non seulement njariñu adduna bépp la mais Afrique ak Sénégal dañ ci waroon profité waaye kenn reyu ko kenn reyu ko ku dul les occidentaux combine ak sëriñ sii combine ak tubaab yi ñuul yi fi nekkoon ñoo ñoo fàdd Cheikh Anta Diop Omar Blondin ko fàdd génne benn journal rek benn journal buy wane ne biñ jàppee Omar Blondin ab sëriñ wax na ca lu baax damay weer gatsa gatsa ci la ne gatsa gatsa ci la ñu ne comme amul leen jom ñi ngeen àndal am na ci am jom man ku ma tegi tànk man la tegal sa tànk yi wax naa leen ku ba tey kan toog utiliser la science par la science la discipline les arguments l'intellectualisme bu répondre à notre façon man yooyu ñoo ma mën a yëngal noonu lay xalaatee te noonu laay jëfee dama ne bu lu nu nax combine yi am ci Sénégal ba ni combine yooyu moo am Ousmane Sonko tey bumu toogee ba sëñ Muntaxa indi tàndama ñaa xola ñaan ci tàndam di mu jox ko mu lekk Ousmane day na def lu ko neex waaye man Ousmane Dramé bu doon man du ma ko lekk te ñi ko indi naan delloo leen ko ci moom ngeen jox ko ay tàndarmaam Ousmane bi mu jekkoo gis ngeen délégation mag lay def xale mbàkke yi ci kaso bi ñu ci baree baree bari ce sont des prisonniers artificiels lu ma xam laay wax ñooñu dañ leen a jàpp def ci kaso bi pour ñun sant fëgg jaay yi ñu sant fëgg jaay yi bu ñu jàppee ñun néeg bële ci ginnaaw ko sant mbàkkee fa nga mën ne pat dalal som xel ndax ci yëfi dof yooyu ci la ñu nàmpal ci la ñu yar ñi sant Mbàkke ci kaso bi mam ci lu mu wér Macky Sall moo leen àbb ci biir pour bu ko defee psychologique li prisonniers yi dañuy comprendre waaye ñooñu ginaar la ñuy añee ñooñu musi ñooñu dañ di lakkar am xar ñooñu dama ne dañ leen di fay buñ génnee jàpp Bassirou jo Bassirou Diomaye Cheikh di sama xarit di sama nit di sama lépp ma gëm ay projet am bu ma jaaxle laaj ko bu jaaxle laaj ma mu nit koo xam ne wubbiku taxaw di défendre l'islam au Sénégal sëñ Bass Abdou Khadre def ci kaso bi sëñ Bass moo ko def ci kaso bi il faut le dire te la mu waxoon lu les marabu kee la ay complice lañ wax dëgg wax na dëgg da ngeen jàngut Niger Niger ci boppam senegal musuñu mën a wori wori wori ñemee wori te Niger di xool ndigal la fa daa jóge Niger fa la ndigal daan jóge amul kenn kenn ku samp ab tarixa ci kanamu tubaab bi te permettre loo mu permettre loo ko joxul aw kayit amul kenn kenn ku mas a xutba te xutba bi tubaab bi jotu ci ba xam lu mu doon ba noppi door laa bàyyi nga wax ko ci askan wi tubaab bi dem na ba booy xutba day yabale ndaw mu taxaw wala mu mujj ko taxawal boppam loolu moo xew ba bu julli jumaa joti kan xaar gouverneur gouverneur ak séegul kan xaar Senghor Senghor ñëw kan xaar nangam moo tax sama benn bàyyi ma di ko lu ba nëgëni ndax biñ ko rey xale laa waaye du ma ko fàtte mukk mu sëñ Moustapha Lo sëñ Moustapha Lo bu ngeen gëstoo ku sant Dramé la àndaloon Gassama Dramé su ma waroon a tiire même Moussa Dramé nangu fetel gi ci moom ndax lu ko naqari dafa fetel jaar dafa fetel julli ci jumaa ji koo xam ne ab lank la lànk ni du jullit xam lislaam may lan mu lànk diggante minbar bi ak ima fi imam bi taxaw ak ak premier sàppe bi ñu teg ko ci bang mu toog ak i dàllam tegle tànkam di bind mel na ay ay doome raamani ci jàkk ji waaw bind julle ba sëlmu nag ci la Moussa loo xool xam lii nag xari na ko ndax Moussa yu doon fetal Moussa daan gi fam koy nango lañ koo gise mais billaahi am na suñ baay boo xam ne buñ ko bawoon ak moom Senghor du rëcc Moussa loo xir gum xir ak yàkkaatu gum yàkk dem ci Senghor moo tax dal ci kawam ban jàppee Moustapha Lo di ko rendi ñaata xalif généraux ñoo fi ne ndax kenn kenn ci ñoom ubbi na gémmiñam xanaa dañ ne Senghor gaaw rey ko boo ko reyul keneen dana ko def gaaw rey ko moom dafa xaru pourtant am na ñum mu am na ñu mu te fetal ga moomu ko ana ko moomoon fetal ga dama ne kenn delsi yéen xale i lii waxuñu leen ko de dama leen ko bëgg a wax ngeen xam ko bu ngeen ko xamut du ngeen xam fu ngeen jëm waaw xeex bi amoon teewoon xeex bu méttee amoon teewoon néew yi néew yi dañu doon fekk dale ci marché bi lakkante ay kër taalante ay kër ngir lan Lamine la àndal ci ne Senghor la àndal lamin ak Senghor ay politik tax ay doomi bàyyi jóg xepp ak xepp lakkante kër njur ak njur la mu demee lañ leen ko jàngal ngeen xam ko lii xewante woon demoon da bay xew Touba monsieur Cheikh Mbacke mu ànd ak xel mu dal akuk teey lijjanti ko mooy këyiti jumaa ji avant nu koy tabax ak bin koy tabax ay coow yu bare bare bare ci newoon monsieur Cheikh Mbacke moo demee am xel Senghor jàpp ci ci kaw ci kaw ci kaw ngeen jàppale ma su ngeen ma jàppalee danaa jëli kayite jumaa original bi ca France indil leen ko Senghor a def loolu du dëgg du dëgg bu du dëgg weddi leen ko dama ne kan bu nax suñ bopp tubaab bi tubaab bi man mii wax ak yéen sama maam tubaabee da ko rey reylu reylu te ay jullite ko war ay jullite ko wor amadu Cheikhou ak Moussa Molo ak tubaab bi ñoo wax seeni wax lal seeni plan fekk Mamadou Lamine Dramé fi muy jàppe ñu dëbb ko xeej ci sàq mi der ju bari tuuru ci moom mu génn àdduna ñu dagg bopp bi jox tubaab bi tubaab bi soo ko ci ay mbuus yóbbu ko Paris bu ngeen demee jour boobu mu wàcce Paris na ngeen xool journal le petit journal daan ne la tête du roi africain est arrivée à Paris tiitre ko kooku sama bopp maam la kon lii may wax laa mbutuuma bëgguma toog bank samay loxo ëllëg sa mam wala sa mam ne ca baar sàq jàkkaarloog man Ousmane Dramé ndaxam wéruma waaye du ma ne pat ma lànk dama ne suñu maam ak seeni baay ña nga ca àlla xi ña nga am tëdd jàkkaarloo ak yéen jëf ji Macky Sall nekkee ci réew mi ku ci jéemul dara ku ci jéemul dara sa maam bi nekk baar sax gàcce lay dama ne njaam gi ne dakk jóg sëriñ si leen leen ci xaar dama ne sëriñ bu leen leen ci xaar te waxoon naa leen c'est la minorité quatre-vingt-quinze pour cent des marabouts lekkuñu naanuñu nekkuñu ci jàmm seeni kër neexul wopp di dee amuñu luñ fajoo moo ci ne seeni doom ak seeni taalibe ñoo song gaal gi ak géej gi di ci dee guddi suba ngoon waaye doo dégg xalif général bi ubbi gémmiñam parce que ak njabootam ci loxoom ay géwalam ñoo ko wër di ko tagg ak a jay ba lu bëri di ko intéressé tëj gi ñu tëj Ousmane Sonko xalifa yi intéressé wu leen ñi naan Macky Sall coow li daa bari coow li daa kisa dañ ko fee a jële lu ne la ñuy waxanteeg Macky Sall tëju boo génnee jàkkaarloon dofi ngeen naan jaaxaande Macky Sall ak seen kaw li fi nekk moo am nañ ko bokk wax ndegam sëñ Tuubaa ngeen ne moo ñëw ba Tuubaa ñibbi si Sénégal ni jéggal na tubaab bi te tubaab bi lu ne woon na ko te bu ko tubaab bi woon lu ne ak tubaab bi di ko jël di ko jël di ko yóbbu ñaata Baay Faal la nekkoon senegal maam Cheikh Ibra Fall la ngi fi est-ce que benn Baay Faal benn Baay Faal rek jël na ak cour songu tubaab bi bu leen di fontoo bu leen di fontoo même sëñ bi bu leen leen dëkk baa ngi noonu ah sàmm leen mu war may dëkk bi xam nga war ma war may dëkk bi war may dëkk bi mooy taalibe yi war may dëkk nit ñi Touba googu lu suñ Touba taxaw jéggal Touba beeg nasaraan yi te anañu ñoo ñu nga tugal ñoom ko siixal ñu nga France ñu ne Amérique sëñ Touba ni jéggal naa leen yéen ab Baay Faal ab Baay Faal ni ci biir Touba ne du ma jéggal murit bi ndax am xel nangu na ko murit yu bàyyi seen dëkk ñëw dëkk si ngeen di ay sanc ñu lekkuñu naanuñu ay desi sëriñ desi sëriñ la lekk ku ci wopp dee ku ci sa doom jàng alxuraan ba mokkal ba mokkal day wër di wàcce kaamil pour am lu mu indi ci kër gi wala mu topp ab jàngkat di aw wala mu dem marché occas di puus ay saret tey kooku bu demee ba am boutique ba am boutique danga dem leen taal dafa dafa jógee foo mbedd la xale yëpp tiit amuñu wallu amuñu fuñ jëm c'est triangle maçonnique bii nga xam ne moom la Sénégal di doxe son Sonko jël njur ne dama koy dajji sànni ca àll ba ay kilifa yi dina taxaw ànd ay tubaab yu ñuul ñu tey seen doom seen doom di tëj ci kaso bi ñaata nit a ne ci kaso bi ñaata nit ma yaakaaru si Muntaxa bu jógee ànd ak mbay ànd ak si ànd ak sant ñas gaayin boobu sant ñas sax laay wax waroon mën déggoo ñoom ba yi ci kaso bi ñu leen ña dee ca géej gi mënuñ ci dara dee nañ waaye ñii ci kaso bi seen bakkan di nooyi sëñ Muntaxa bu leen bàyyi ñuy gré de di dee ay doomi guro ak doomi tàndarma réglé wu ko xam nga ko li koy réglé mooy joxal taalibe yi ndigal ñu dem jëli leen wol Macky Sall wax ko ñetti dëgg bu lànkee ñun ñu dem jëli leen waaye da ngeen mën leen di liggéey am nañ ku mu ñu naan dégg naa dañoo liggéey sëriñ si dañoo liggéey waa liggéey waaw liggéey mënta ñàkk fétiche mënta ñàkk waaye ku gëm ku gëm liggéey liggéey di jàpp te xalifa yi dañoo gëm ab liggéey de dañuy liggéeyante pour ko doon xalifa danga xool da nga dugg lu xëloo ay yoon man Dramé laa sant suñ bokk ca Guinée danga leen di fekki ñu leen ñaanal ka xaatimal ay na waram telling you man jaaxanke la waaw da ngeen dem ba ca wasalu korte lépp ngeen di deflu pour lan pour xalifa bi dee nga yéeg yow yaag say géwal ak say xarit say caga dañuy waxam ah, danoo bokk ci réew mi am fi ab cër am fi wàll doo téye sa wàll nag di ko sàq mi di ma ko buusu sama kër di sàqami di buus sama njaboot man du ma ko nangu ba ma demee ba xam ne xeex naa ba sama doole wàññiku dama génn yow ci réew mi dem sama yoon an alaaji Aziz si daa baax alaaji Abdou di sama wëlle réew bàyyi su ma ko tuddee sama wëri day tooy moo ma génn Sénégal ñoo demal jàngi Dramé boobu nëgëri maa ngi ci àll bi daw sëñ bas loo am rek war naa koo am du ndey nga ma gën du bàyyi nga ma gën du bokk nga ma gën billahi wallahi gënoo muy jullit mun la ñaagalee ñaagaluñ ma sax war ngaa geesu sa ginnaaw coppati ne am leen mos leen waaye lu lu ñëw nga lekk boole état di complot ak état nekk mag moo xam ne am na téeméeri at nga waroon ko mën a jàppale maanaam di àggal di dëgg gi ci moom ñu lay wooye porte parole porte parole boo indee parole ñu recevoir la da ngay dal booy dem ñu jox la kàddu nga yóbbaale waaye da ngay indi waaye doo yóbbaale mukk ci àdduna moo lu baree bari ump sëñ bi te nag war naa mën a ump sëñ bi téeméeri at koo am ne ci nguur te nguur gi nga nekk ay jëwal képp la ak ñu lay jay sëñ Tuubaa Mbàkke ñu ko daan wër di min xool leen xool leen fukki yara wër sëñ Tuubaa ak fukki wër wër sëñ bi xool leen dañ ko wéer ci a ah, ci kër gi la bokka ah, kan ko jël kee de doomi dee woon kan ko jël kii dama mën naa firi tuuti nangam kee de nangam dajale ay mbooloo mbooloo ay opportuniste dajaloo bëgga a gérer un peuple duñ ko nangu maanaam dama ne sëñ bi kenn kenn bañu ko sëñ bi kenn yabu ko le mouridisme la te muy ba kenn ba sëñ ba ba Abdou Khadir Jeylaani sampee Chamati yaan samp Sénégal samp le mouridisme kooku loo def sénégalais sénégalais loo war ko mën a nangul Sëriñ Tuuba waaye état bii nu nekk fii nu nekk ñoom ñu ne ci ay njoowaan ñu nekk ci sit te kenn du ko wax ku ko tudd ñu ne da ngaa bañ sëñ Tuubaa da ngeen di fen bañuñu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dong la xale yi bëgg demal saamet tey nga tudd fa sëñ Tuubaa ñooñaa dal ci sa kaw xale yi Pastef yi tudd sëñ Tuubaa ci seen kanam sa kaw la ñuy dal waaye nii ngeen nekk nii ngeen di doxale ak parparloo gu ne fàng moo naqari ñépp doomi sëñ siidi jooju du jóg du bàyyi day taxawaaru du jóg du bàyyi waxoon naa leen LGBT dafa bokk ci ci maçon yi dafa mel ne ab tariixa la ca ñu yàlla dogal ñoom ñuy ay góor jigéen ñooñu dañoo bëgg pouvoir au Sénégal LGBT dafa mel ne campagne bu mu def Sénégal campagne bi lii la jabaru président de la république dafa am fondation ñu ko ci defal xaalis bu bari moom itam mu recruter borom sant yu bees yi sant si ay make si ki taale ki jaxatee yooyu mu jël leen jaxase ñooñu la tànn ñu doon ay góor jigéen jigéen xoole jigéen ju sëy jigéen ñoom seen benn association boo xam ne jabari kilifa yaa ngi ci Dubaï la ñuy daje daaw daaw LGBT lu mu def jël ay doomi Sénégalais suñuy doom ñu doon ay góor jigéen ñu yabal leen Dubaï yabal leen Dubaï xale boobu Mbàkke mu leen ma nga woon ñu wër fi naari jaaye or di génne xaaj bi baatare ñu leen jox or mais xoola góor jigéen yi Sénégal yi ak ñoo bay xoola góor jigéen yi maanaam dañ doon pompe pour ñu ak ci niveau international boo xam ne ñun Sénégal yi dañ leen di ñee wala suñu doomi xataraay bëgg a mel ne ñoom moo benn campagne dafa échoué xool leen vidéo yi day ay góor jigéen Sénégal yi nekk Dubaï di peese ci or bi dem ci salon de massage dem ci jacuzzi ñu leen sang ak a raxas ñu ne ay sénégalais lañ dama ne kër sëriñ si kër sëriñ si ngeen di topp ñoom kin gën a bëgg kin gën bëgg sax mooy doomu xalifa doomu imam doomu docteur doomu ministre ñooñu lañ soxla mu doon une mafia boo xam ne ñooy développé loolu ñu LGBT ci biir réew mi xalifa wala kilifa ku ko bañ ne du fi am bu la so soxna raay war sab nopp nga ne sama yoon newu ci wala yëguma tinuma kan waxante dëgg te ngeen jóg ci réew mi yàlla danañu ko laaj de danañu ko laaj Ousmane Sonko mi ñu seetaan muy ab jullit ànd ak nun bàyyi yitteem yëpp nekk ñu teg ko loxo ah Ousmane taxaw ne noppi ngeen ñu ne ko noppi nañ de noppi ngeen ñu noppi nañ pere ngeen mu vous êtes pere ñu noppi nañ loolu la wax Kër Massar wax ko fépp ñëpp ne ko noppi nañ ana lu mujje mi ngi ci kasu bi tëdd yéen ñi noppi woon ana ngeen ana ngeen ana ngeen fii la sëñ Muntaxa ne maa leen ameel bor ko ameel ko la ameel bor kay ba nar ko posone demal nu ba ko Macky Sall mu ko tëj demal ca Macky Sall nga ne ko baal doomi jàmbur na nga ñaanu Ousmane Sonko ba mu ba mu bàyyi demal nga ñaane lu Macky Sall boo ko ñaanee bu bañee nga wax xotaali bi ne man kat ñaan naa waaye bañ na waaye ba nga ko ñaanee ci fukki poñ fukki poñ danga ko jox këy Macky xotti sànni fukki ba yéen dundoon ba ngeen joxe Macky da ko xotti sànni te booba tey dégguñu sa tontu tey bu Ousmane de ba lekkut naanu ne ci diggante dund ak dee ah man de jox naa ko pour mu lekk waaye nu ngóole lekk dee na sama jaan wàcc na sa jaan du wàcc parce que l'histoire va parle histoire bi va parler te du ñaaw léegi ca kanam lay ñaaw te daañu li weddi yéen ñëpp dañu li weddi indi pur islam au senegal comme ni ko Serigne Touba Mbacké bëgg woon noonu lañ koy doxalee waaye jël se Baay Faal ni dëkk baa ngir dóor rek ñu jotul dara Serigne Touba toog jéggal ay noonam te noonu yi nekkuñu Touba de yow koo xam ne dafa bàyyi léppam bàyyi dëkkam bàyyi su bàyyi li dëkkandoo ak yow amul benn bénéfice benn bi amu ko ci dëkk bi amul fenn fu mu jëm fu dul marché occas amul fenn fu ñu taal dawal ab sareet doomam bu lettoo nga dagg sànni doom bu soleb kam nga nangu xotti te xale yi mbàkke mbàkke ni ci dëkk boobu di biiral jigéen ñi biiral xam ngeen ko te jàppagu leen ci kenn toroxal ko ndax sëñ bi ne eh, suturaal na sama sama njaboot googu yi mbàkke nañ leen suturaal mais ci dañ war ñu sutural ba yéen dof yi ngeen yor seeni cours ah dama ne xanaa leen am ngeen njaboot leen yàlla sant ngeen jëfe ko moo gën a leen sëñ bi sant surtout toroxalal kii te ki ngay toroxal ab murit la ki ngay toroxal baayam maamam dañu liggéey sëñ Tuubaa ba seey ki ngay toroxal ma nga barsàq ndey ki maamam yow ngoor ko aar amul lu def ne daasol sol mbaxana da daa benn brasserie bundu Ousmane Sonko damay dagg loxo bi malu ma naqari trop waaye nag nii senegal masamel ma ponkal mu rëy nga taxawal ko ci bascule wu e. wëññi ay bëñam bind ne ko jaay naa la kee jëlal yóbbu ñu yeew la ci buum womat deret jooju deret jooju dootu mën a pur dootu mën a baax deret ju bon la te Cheikh Anta Diop ne tout le monde est de l'esclavage tubaab bi daa wax sant de sa xottu taat lay xool natt la xool say loxo mu jot waaw mu ne dawal nga daw ne dellu si dawaat mu ne kii ko kii ko tax repasse mu baax ah. kii defe naa ne tuuti repas ak mboq ah, tuuti CMV quoi tuuti CMV lañ jaxase rek ak ak repas xëy na ah, après il va se ku mel noonu partout dans le monde l'Amérique du Nord l'Amérique latine ay leen yi lépp ay Sénégal yu taxawal ay nit jaay leen ñi tubaab bi jël leen yóbbu toroxal leen boo dox fii dag seen day daw da ngay xool nit jàkkaarloo ma sa yaram di daw mu wóor la ne yéen a bokk deret waaye ñi wu ko tudd tey ñooñu ñooñu les africains de la diaspora ñooñu ànd ak Cheikh Anta Diop ne dañoo bëgg a ñibbisi dañoo bëgg a ñibbi yéen ngeen di combine ak gouvernement bi di combine ak tubaab yi amul lu ngeen mën ci réew mi du dëgg torox baaxul te Sénégal dañ lay toroxloo da ngay torox ab sëriñ boo ko séenee fee da ngay summi dàll yi ci suuf di raam di jooy di raam di jooy di raam di jooy baag jël loxo ba daal di fóon fóon ay gaan gaan sol nga fóon ci fóon jooy jooy mun na roset loxo ba nga sigi ne ko yàlla nga fi yàgg te wér mais yàlla fi yàgg te te ba ngay jógee sa baay dëkk bay dem sa baay nga ci kër ga waxu baay ñaanal ma damay dem seeti sañ diw nous sommes des travestis tubaab bi la mbaxoon dëgg la mënumaa defar nit de waaye mën naa jopp nit nit soppi ko golo tubaab bi waxoon na ko waaye mën na ko ndax def na ko un intellectuel sénégalais ñoo ñu gën di doomeeraam jànguñu dara dara lu lu tubaab bi sol ci seeni bopp qu'est-ce qu'un intellectuel ci Sénégal terme yi ko tubaab bi jëlee képp ku mën a wax tubaab bi dégg li nga wax ngay wax mu répondre à la culture occidentale ngay gis gisin woo xam ne day parallèle ak ñoom ni gisee day jox aw këyit ne la mooy sa diplôme ne la nag tu es un grand intellectuel moo tax Cheikh Anta Diop ne moyu leen borom di jaase yi réew mi ki koy defar du ñoom waxoon naa leen sëñ Baara musta jàng école te billaahi wallahi sëñ Baara moom man Macky Sall ci gouvernance sëñ Baara Baara c'est un grand intellectuel te musta jàng xalaatam mépp da ko concentré wu ci ni muy dunde fi mu jógee fi mu bokk ñi muy àndal li diina ji mu am muy islam ak ñi mu bokkal ba ci bokki chrétiens yi ma di leen sargal di leen màggal ndax chrétiens yi ñu maandu lañ chrétiens yi dama ne ku bëgg ku jub demal ci ñoom kees yi dëpp ci senegal quatre-vingt-dix-neuf pour cent kees yi jullit ñoo ko dëpp dama ne kees yi Sénégal quatre-vingt-dix-neuf pour cent kees yi ñi wuy islam ñoo ko sàcc ak ñi tubaab bi jàngal ba jox leen aw këyit ñu naan les intellectuels menuisier yi sàcc ñu dara maçon yi musuñoo dajji kees baykat yi musuñoo jël kees ouvri yi duñ jël le petit fonctionnaire jëlut soldat bu ndaw bi du sàcc sàcc yi sàcc yi mooy ñooñu jox diplôme yi ne ay intellectuel ngeen que ça soit dans l'armée ñoo ñooy doomeeraam yi nga xam ne lépp loo xam ne ñor na ci réew mi jël ko moo tax ñu war a delsi en tant que des fils de sénégalais dans la dignité dans l'unité et la révolution et notre culture notre religion ñu jéem a jubante réew mi te ànd ak suñu mbokki chrétiens yi encore chrétien Sénégal bi ku neex a àndal la dama ne ndëng gi am Sénégal yëpp ñun jullit yi la musuma dox Sénégal ci mbedd mi ba gis ko naan ba mandi daanu ci suuf ñu yëkkati ko muy ab jullit muy muy muy ab chrétien chrétien dañoo civilisé am fulla nag am fulla te seen organisation yi ci yoon lañ koy teg xam heure bi ni informé waa France li xew bu ngeen xoolee Sénégal nous sommes la majorité mais ñoom ñaata feet lañ am ñun ñaata feet lañ am ñun ñaata ñaata feet lañ am koor maanaam koor yi tabaski ñoom li am ci feet mu ne trente seenu dal seenu tey xam ni ñi naxante ak seen yooyu moo leen ko may xool leen seen jumaa yi seen jumaa yi ak seen jumaa seen jàkka yi ñoom ñun sun doom bu feebaree six heures di matin la paa bi ci jumaa ji yàq julli fajar ñëw ci kër gi jàpp ci loxo xale bi yóbbu ko kër sër ñu faj ko senegal boo feebaree jumaa joo dem da nga dee dama ne kër làbbe boo demee daanu jàngal sa doom daanu ko faj may ko ay doom mu ñibbisi dema jumaa joo yaakaar senegal dem fa dem fa rek ne sa biir lay daw bilaay da nga day ca jàkka jabam tooy xib te doo faju cette minorité chrétienne doon suñ lépp ñoom góorgóorlu nañ ba gérer seen bopp waaye noonu nag kenn xamul lu ñu doon waaye daañu torox buñ soppikuwul ñett ñii kii fi tubaab bi teg ak tubaab bi ak sëriñ bi ñu naan ko xalifa mafia Sénégal a ngi noonu te am na lu mu wér ne ñoom sëriñ si si amul ko ci maamam d'accord ci lii ndax maam ba muy dem bàyyiwu fi xalifa bàyyiwu ko fi sëñ Tuubaa Mbàkke bu ñëwaatoon fii nga jàpp ci loxo bi ne ko maam kam yóbbu la ci xalifa ba naan luy xalifa luy xalifa la lay wax alaaji si nga ne ko ah, da kan comme ñëw nga sa sa jenn doomoo lay nuyu si kan ci xale yi ñu ne ko xalifa Babacar mu ne ma da ma doom ji tudd xalifa la lay wax doom ji on ah, la kon loolu lépp ay yokk yokk la yoo xam ne dañ ko dolli ci tarixa yi te kenn dolli woo ko ci dul framason yi moo tax système bi système franc-maçon la boo jegee lekk boo bokkee lekk boo bokkul doo lekk waaw wut ay nervi ñu wër la nga bu seen yet ak seen i daa jël comme nervi yi Macky Sall jëloon moom ci kër diine yi am na kër yoo xam ne boo ne boo ne allah boo fa tare xul wallahu axat cour dal la defe ne seen sëriñee yàlla mooy yonent bi fii la Modou Kara taxaw naan ndox moom mi taa Tuuba naan leen ko ndox respecté la doomu aadama yi ndox moom mu Kara dama nga naan koyow yow ngir yàlla xale jóg leen jóg leen jële bu ngeen di xaar kilifay diine yi bu ngeen di xaar réew mi ci boppam waxuma LGBT ko moom Sénégal LGBT moo ko moom Akon Sitile noppi casino yi góor jigéen yi tàmbali Sénégal yi ñu yàq leen ñëpp def ay yéeféer te sax mooy am parce que jéemu ñoo xeex Ousmane Sonko mu jógoon gën a dégg alxuraan Ousmane Sonko mu jógoon xam naka la ak nu Ousmane Sonko mu jógoon comprendre adduna bi ak système bi comprendre comprendre nouvel ordre mondial the new old order Macky Sall ne ko cas ci kaso bi yéen sëriñ si yóbbul ko bong bong bi boo ko joxee bong bi ne ko sëñ bi sëñ bi tiflin na ci nanga ko lekk sëñ bi souvent da na lekk say tiflin il faut nu respecter maam àdduna bépp bëgg Ousmane nu bëgg ko àdduna bépp di ko xool lépp lu ñam wu fay dem rek fóoroo ko wol ba wala nga di ko tifli ñam wuy dem ci moom rek waaye loolu tuutal Sénégal la xoola kii parce que ñoom xamuñu ah xamuñu xoola xoola le vieux là il a il a craché il a craché sur le sur les tendarma là il a craché ñu yóbbu ko rek Ousmane Sonko di ko lekk àdduna bi di ko xool Ousmane day moo xam xam naa ne jullit la bu wér sa xam naa ko waaye ak lu ko mën a man bam lekk loolu man Ousmane Dramé bu man du ma ko lekk na ma sëñ bi bàyyi Macky rendi te Ousmane dafa ne ci dëgg Macky nekkul ci dëgg dama ne Ousmane dafa ne ci dëgg Macky nekkul ci dëgg kon sëñ bi war naa mën a jóg ki nekk ci dëgg mu ànd ak moom waaye mille trois cent et quelques détenus ñëpp Macky tëj leen ci kaso bi wut ñu sant Mbàkke denc liñ ci beneen booro bi ñen sëñ say di wa nekk sëñ di wa nekk fekk màkk di leen a àbb pour denc leen combine yooyu xam nañ ko ñooñu sant Mbàkke ne ci kaso bi gis naa ku soof kooku nu mu tuddati baara dolli góor jigéen boobu kooku moom c'est un homosexuel baara dolli c'est un homosexuel góor jigéen la bisexuel day bëre ñu di ko bëre gis naa muy napp soxna busa soxna busa ko woon a fit jigéen la waaye billaay bu leen boole cib néeg soxna si yeewoo ko baara xoola am nga sa benn frère boo xam ne sa benn frère weeru koor weeru koor muy tëddee jabari jàmbur juge bi laaj ko non man man mu ko ci koor gi de damay ban dog damay bàyyi ban dog dama naan ban dog ma tëddee ko ci jabari jàmbur sëñ Abdou Baara doole xaw looy dolli sa waa yow soxna si ngay napp na nga ko ba moo la ëpp fit billaay moo la ëpp fit soxna busa dama ne moo la ëpp fit moo la ëpp responsabilité yow doo député dara tu es là par la corruption tu es là par les combines mais yow ku leen jàkk ku leen jàkk ngay niroog waa yow da ngay bañ a tudd xeetu kenn demal nga seetu xool sa bopp da nga xam race bi nga bokk da nga koy xam ak sa xottu taa du rëy sëñ Baara doole yow laay wax ah. demal nga seetu xool sa bopp futtikul ba def tuunug neen jàkkaarloog miroir bi xool sa bopp danga xam da xam ne santoo mbàkke futtikul nga jàkkaarloo akob seetu xool sa bopp ak sa biir ak yi lang nga xool ko danga nga mën a waat ci yàlla na santoo mbàkke sant mbàkke sax lan la ba nga bëgg a jóg rek di dal ci kaw nit ñi ak wane réewande un boo xam ne sa bopp nga fa nekkal te nga ànd ak Macky Sall ëllëg nga bokk di wuruj wuruj wuruj wuruj di sàcc sa yooyu day dakk de dakk dakk xol xale yi xale yu bare ngi ci dëkk sant Dramé xale yu bare ngi ci sant Jaxate ak loo xale yu bare bare bare ñi ci dëkk sant Kebe ak Silla doon de vrai jaaxanke indi fi l'islam ci réew mi yow mënoo dundee l'islam mënoo dundee l'islam ñooñu seeni doom di tàpp ci gaal gi dee baara dolli arrête yàgg sëñ basa yam li sëñ Tuubaa liggéeyoon lépp yéeni ci sànni ay pee di suuf waaye borom dana ko yëlëb lépp sànni waat leen bu ngeen tegguli seen tànk da ngeen dee yi dem sawara senegali yi sonn nañ lott nañ dàcc nañ xamatuñ fu jëm di tàbbi ci ndox mi dee baara dolli Ousmane Sonko ñu jàppale Ousmane Sonko taxaw di la xeexal di la dimbali nga génn war ko yow war ko ba ba Ousmane Sonko yi dem man nee naa Ousmane bul dem kii jëru ko ñu ne ma da ngay saboté bul yàq mais la moo xool gis nañ ko bala màkk jàppee xaw ma combine yoon de xaw ma da ngeen doon combine sax boobu mooyul bam la jàppee da xoola dañ laa waroon a bàyyi góor jigéen tëddale foofu yow te sa woon tëddee nañ la nga ñëw di fontoo nit ñi ci mbàkke laa sant bëgg a puub ci suñ kaw doo def waxi nit soxna bu sa day sa moroom jigéen la waaye bu leen tëjoon tey ngeen di xeex ay kurpeñ soxna si laay teg ci laay teg sama xaalis man ñàkk jom kon gars yi maa ngi jéggalu bu baax dafa tollu rek foog nu wax ndax quatre-vingt pour cent réew mi amu leen quarante kon jaadu na mag mu fekke lu bari di ki jàppale xale yi pour delloo seeni fit te yi ñu leen gëmloo nu bokk xam ne dara du ci dëgg lépp poob la lépp ay po ay jonkan dara du ci dëgg te lii ma leen di wax lii ma leen di wax ñi sampoon yoon wi ña nga ca bar sàq waaye kontaanuñu dama di xew ci réew mi seen maam yi santoon yoon yi ña nga ca baar sàq waaye seeni rangooñ dana tuur ndax nii seen sët yii nekke ak taalibe yi bun moyul dama ne bu ngeen moyul tuubu leen billahi wallahi yéen ñëpp bu ngeen dee sawara ngeen jëm te seeni maam du ci kan dara kon asalaamaaleykum wa rahmatullah del du jéggalu bu baax a baax a baax bëgg Sénégal bëgg mu senegal Sénégal waaye yàlla dugalu ko <coughs> sama alal la nit teg ci loxo <coughs> ngeen jégal mu baax ngeen jégal mu baax rek sama sukkar mooy mooy monte lu bari daal mooy monte lu baree baree bari moo tax daal ñaare damay dama dutu làmmiñ ñu taxaw ko maa ngi ziar ñëpp nag Ousmane Sonko nan ko bokk ñaanal ñun ñëpp yàlla rek mooy buur waaw yàlla mooy buur xul wallahu ahad yu baree bëree bëri lim bi loo ci man rek ak boo toogee defoo dara rek nga di ko jàng di fàttali ko yàlla parce que ko jàpp yàlla lañ teg seen bopp te soree nañoo ak yàlla kan wéttali ko lixlaas tey ñaan xol yi tooy na trop te danañoo tooñ te bu ñaan yàlla nangu ko kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane drame bu la de des consciences peace and love peace and love détenu yi yëpp yal nañ mucc yal nañ génn mucc ci loxoy Macky Sall Macky Sall ak sëriñam si yal nañ dem ba jeex tàkk Macky Sall ak sëriñam si yal nañ ci yàlla dimbali ban jël seeni bagage génn àdduna sax buñ ko mane ndax sonn nañ jaaxle nañ xamatu ñuy def te lii dee jëru ko ñoom jëruñu ko waaw cette minorité de marabout ak ces minorités de de de politiciens yàlla yow rek a man yaa attan yaa attan lijjantinu ak ñoom sonn nañ trop jaaxle nañ trop xamatuñ fu ñu jëm ak fu ñu teg suñu tànk dem na ba ñun jubóotuñ si dañuy reyante sax waaw loo ci man yàlla def ko waaw loo ci man def ko te na mu gën a gaawe nag mooy liñ gënal asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf